Bonjour, comment ça va et comment va la santé asalaamaaleykum mbokki internet yi mbokki téléspectateur TV ak ñëpp ñu topp seen www.baoltimes.com ñu leen di nuyu di leen présenté waa seen benn émission fagaru leen ñu ñëwoon fii si biram waa Baol TV bon en fait kontaan ci dëkk bi ngeen dëkk di sant bu aussi ñi nga suñu mbokk téléspectateurs yi nga xam aussi ñu ngi ñuy suivre kon ñu ngi leen di déglu baax a baax pare nañ pour lépp loo xam ne bëgg ngeen ko ñëw uyu leen ci incha allah. saa ni ñu ko xamee ci population bi feebaru bëñ dafa bëri torop lan mooy cause bi lan mooy joxe bëñ bu feebar. vraiment euh, position bi euh, euh, question bi am na solo parce que ici à ici à Diourbel Bawol surtout. ñoom mu xamuñu problème duñu xamuñu problème mu santé bi ko dentaire c'est-à-dire que duñu faju lépp lu jëm ci wàllu bëñ xamuñu ko moo tax hygiène bi ko dentaire bi def si moo tax tout le temps boo demee léegi ci clinique yi hôpital clinique dentaire yi dispensaire day fees dell vraiment cause yi nag bari na trop sax bari na trop mais mën nañ ci wax lu xaw a yem nii cest dire que nit ki normalement dañ ne nit ki bu lekkee ba pare war na mën a brosu nit ki bu lekkee bala muy bala muy tëdd guddi gi aussi war na mën a brosu mais li gën ci nit ki bu fekkee danga nga bëgg a bañ am problème mu bëñ bëñ gémmiñ dafa doy waar parce que lépp loo ñam bépp ñam booy lekk ci gémmiñ gi lay jaar bépp ñam booy lekk ci gémmiñ gi lay jaar kon bu fekkee ne yow da nga lekk galandiku bàyyi noonu dafay doy waar parce que gémmiñ dafa am doole li ngay gis gémmiñ bëñ boo màttee boo ŋaayee soo tegee sa baaraam yëngal kii euh, kii ko ci euh, daas ko ci mënul matt moo mënul dagg mooy mooy matt mooy dagg c'est-à-dire que force bi nekk ci bëñ gémmiñ moo am doole moo tax boo lekkee dafay lekk yi dañuy damyewu ci biir damyewu bu ñuy damyewu ci biir su fekkee dafa am 2 jours 3 jours dañuy décomposé wu nekk ay microbe microbe yooyu ñooy transformé wu nekk di di yëyaat di di yëy li nga xam ne moom moo tissu bi nga xam ne moo nekk première couche bi nekk ci kaw bëñ bi loolu moo waral presque boo xoolee ici a Diourbel comme ñoom dañu ñemee ñam yoo xam ne dafa ñam yu saf xorom ak ñam ah, ñam yu saf euh, suukar ak ñam yoo xam ne dafa am acide et ndox mi aussi dafa am acide ndox mi daam am tuuti filioor loolu moo waral boo xoolee ici a Diourbel ba surtout Bawol ñu soxla trop ci wàllu bëñ cause yi nag comme ni ma la expliqué woon mën na nekk euh, comme ça cause bëñ bi xëy na lekk yi mën nañ ko yàq wala yow nga nekk yor benn instrument bu dëgër nga koy teg sa bëñ di màtt di xëcc wala aussi nga lekk ba pare en général booy faral di sécréter lu bëri aussi mën na la indi ay mën na la indi ay méttiitu bëñ yooyu yëpp indi méttiitu boo gisee ma ma xaw ko résumé noonu booy faral di lekk di sécréter dafa am benn feebar bi mooy indi li ñu naan poche poche mooy waral foofu day nàcc fees dell ba tax day waaw ba tey aussi technique de brossage dafa am technique de brossage dafa am dafa am lu ñuy brosso brossage brosse warta gaaw war a nooy ci suuf ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk mu ngi mel ni yow jigéen booy bale te boo jëloon bale bi paras paras paras dem du set mais booy boros da nga war a jël sa temps def ndànk di wàcc bu nekkee ci kaw bu nekkee ci suuf nga yéegal ndànk boo paree fi nga xam ne mooy plaque oligizale mooy bu ñu ci ginnaaw nga xam ne dañoo taaju parce que yooyu mooy lekk maam nga koy faas ndànk muy set boo paree nga jël ndox nga galandiku ba mu set nga bàyyi waaw bari na dafa am cari dentaire xam nga des fois nit day ñëw ne la man dama am carie dentaire carie dentaire pour ñuy ajur ba lañ defee ne comme ça bëñ yoo xam ne dafa xarañ la. Ah. non non bëñu xarañ mooy de dents filiores. léegi dents filiores mooy kii léegi carie dentaire mooy bëñ bu yàqu bëñ boo xam ne dafa bënn dafa am benn dafa am euh, carie dentaire une ba six catégories par ay catégories la bu nekkee une catégorie c'est-à-dire que bën-bën su ndaw lay nekk boobu noonu bëñ bi bën-bën bi mu am. xëy na àggagul ci plancher bi nga xam ne fi la stade bi di méttee mais di nga sentir ay sensation am na aussi catégorie 2 catégorie 2 c'est-à-dire que une boobu noonu catégorie une bi ñu njëkkoon wax daf koy doubler tuuti même 3 bi noonu lay demee noonu lay trois bi lay demee ba ba muy dem catégorie 4 mooy waral bëñ bi néew ba pare di métti bu paree nag am na comme ni nga ko expliqué am na aussi comme ni nga expliqué léegi carie dentaire bokkul ak ñi nga xam ne dañuy dem ba seen bëñ bënul ci kaw du carie mais cest bëñ bi ci suuf la yàqoo parce que bëñ bi dafa yëngatu ñam yi dugg ci biir foofu diggante siiñ bi ak bëñ bi parce que bëñ support bu dëgër dugg ci biir su euh, ci boor support bu nooy léegi bu yëngatu bu yàqoo day dugg foofu foofu aussi day fees dell ay microbe ba mujj gi day am dëtt mooy waral lex bi néew yi trop sax waaw. léegi bëñ bi bu fekkente ne ni dafay dafay métti léegi en général nit ñi moom dañ koy bëgg a dindi rek wala ñu polomé ko tey aussi chaque jour boo ñëwee ci spécialiste da wax comme ni ma la ko si façon bëñ yi feebar feebar bi dafa bëri parce que mën nga gis koo xam ne bëñ bi dafa def catégorie une catégorie une dañ koy traité cest à que traitement simple la donc koy euh, taaye defal ko ci benn pansement bàyyi ko une semaine bu ñëwaatee nga dindi pansement bi plombé ko am na aussi bi ñu naan catégorie ba mën na dem ba foofu mais bu nekkee trois quatre kooku traitement endo lay nekk parce que bëñ lii feeñ ci kaw bëñ bokkut ak li nga xam ne maanaam moo dugg ci biir signe bi c'est-à-dire que mooy mooy mooy kii racine bi léegi nag foofu noonu dafa am traitement boobu day traitement canalaire day dem ba ci biir pax yi xam ne ñoo nekk ci bi nga traité ko ba mu faj ba mu ba mu dañ complètement nga door ko plombé traitement boobu nag lu mu gaat gaat dina dem presque 4 5 séances mais en général nit day ñëw nga defal ko séance bu njëkk bi defal ko deuxième séance bi mu tànne wala nga bind ko ay ay ay anti ay garab mais yàgg yàgg aussi day ñëwaat. surtout à Diourbel dañu constaté ne ñu bëri seen i bëñ dafay xonk léegi nga dem nga xoos ko est-ce que loolu tamit solution la ak yan conséquences waaw bari na ci ñoo xam ne fii amatuñu ay bëñ dañu jaal dañu mujj beneen technique boo xam ne moom lañ def muy la prothèse léegi yam mooy sama spécialisation léegi bëñ ñun à Diourbel yàlla moo ñu bindee Diourbel Bawol euh, Diourbel euh, Fatick ba Kaolack dañu am ndox mi ndox mi moo am filior suñ bëñ yi ni mu xonqee moom la suñ yax yi filior boobu ñoo la ñëwee ci suñ yax yi parce que filior boobu calcaire bi lay topp te lépp luy dund ci nit lu jëm ci wàll lu dëgër bu nekkee lu jëm ci wàllu yax day am calcaire bëñ dafa bokk ci loolu mu am calcaire calcaire boobu nag ni mu amee ci bëñ yi ci la amee ci yax yi léegi nag dafa am damay profité tuuti tey un jour man bi may def sama benn préparation dama dem ma Bango dem bataillon parachutiste ñi nga xam ne ñooy faral di wàcc ñi nga xam ne seen di wa di wàcc léegi bu ma laajte ay question yu ma doon def nii waaye dana ma en général bool bool yi wala yenn ki nga xam ne seen bëñ dafa am filior nga xam ne léegi filior boobu noonu dafa am ci yax yi ñoom bu ñuy wàcc pour ñu pour nga gis ku ci damm bëriwul mais ñi nga xam ne par contre ñi nga xam ne seen bëñ dafa weextaan amul benn fleur ñoom seen a gaaw amul ay ci bëñ yi seen bëñ yi amul ñi seen yax yi amul kii boobu noonu dañuy gaaw di damm boo dee aussi ci ñun ñuy à Diourbel sa bëñ mën naa yàqu complètement ba jeex te du metti mais boo doon Dakar la wala yeneen kii wala zone vallée bi nga xam ne seen bëñ dafa weextaal ku ci am kari bu ndaw bu ñëwee da nga ko yërëm pour ñaxoo seen bëñ ko dégg ngeen ko baaxul si li nga xamante ni yaram léegi lan moo indi nag nit ki dindi ay bëñam yëpp daal di koy poosé. waaw dafa am façon yu bëree bëree bëri bi premier bu njëkk bi mën naa ko expliquer am na boo xam benn feebar bu ñu naan vieille jeune c'est-à-dire que noonu feebar la boo xam ne bëñ yëpp dañu yàqu parce que récemment am naa fi benn xele bu jigéen boo xam ne bon ay dara la sant. def naa ay 18 ans la war a am bëñ yëpp a deñ am naa fi euh, benn vieux boo xam ne aussi feebar ba moo ko dal ma vieux jën kooku moom bëñ ñooy tëbatëb ñooy tëbatëb di yàqu mais am na benn kii am na lu ñu naan les maladies desmodonties cest si dire que signe bi mooy am feebar cest à que signe bi mooy am benn des desmodonte subaa benn feebar boo am ne day dugg di dagg euh, tissu yi nga xam ne dañu attaché wu ci signe bi attaché wu ci bëñ bi kooku noonu bëñ bi taf taf bëñ yi day bàyyi day kii signe bi day dagg bu ko defee signe bi waaj bëñ yi dañuy dem ba ñoom ñëpp dañuy yànq à part loolu aussi léegi par accidentel parce que aussi des fois nit yéeg moto daanu nit soog sog rek soog moom xam nga moom mbiru yàlla la des nit am ko aussi ay bëñam deñ yooyu yëpp moom gànnaay ñi posé moom dafa ba tey aussi dafa oh, ne aussi même ici à Diourbel comme ni nga wax woon question bi ñu génn avant euh, lu jëm ci wàllu filior mooy bëñ yu ñuul yi am na ñoo xam ne dañuy ñëw ay jigéen xale ndaw dama sama bañ ni mel man bëgguma ko dama bëgg ko dindi. dama leen di convaincre nag pour ñu bañ ko dindi. mais aussi euh, boo xoolee ci benn côté traitement la parce que bu fekkee ne ko am ne ci suuf ci suuf bëñ yi dafa weex tàll ci kaw aussi bëñ yu ñuul te moom jigéen la xëy na moom muy présenté yenn kii bu ko dee bu boobaa moo def ko mais en général nag c'est pas c'est pas parce que gënul quoi. le fait que nga def gënut mais nag aussi moom dara neeku ci wala ki nga xam ne aussi bëñ yi dafa ñaaw dafa fange trop wala bëñ yi dugg ci biir parce que bëñu fange day am day day am problème wa koo xam ne boo gisee koo xam ne bëñ yi dafa fange day feeñ ci vision bi buy xool day des bu paree dina dem mu mujj bët yi da am problème wala ki nga xam ne seen bëñ yi dafa dugg ci biir aussi ñooñu am na ñoo xam ne dañuy ñëw dindi lépp nga nga def nga def ko protège ñu fange aussi dañuy dindi lépp nga def ko protège mais bëñ yi fange ak bëñ ñu dugg ci biir yëpp mën mën nañ ko traité ba mu taxawaat doo ko dindi waaw mën nañu ko defaraat ba mu normal te doo ko dindi waaw. léegi ban. waaw waaw loolu lu ma yàkkamti woon la su ma sañoon suñu mbokk yi nga xam ne traitement dentaire dafa cher traitement dentaire dafa cher trop trop trop trop. bon léegi li gënoon nit ki bu fekkee ne bëggoo am problème mu bëñ buy metti benn yoon. il faut nga wut pat ak brosse pat bu nooy euh, brosse bu nooy ak pat boo xam ne adéquat la pat mais <coughs> doguma la pat yi ñuy faral di jaay ci marché yi des fois moom moo ñàkk a patu bi lépp loo gis muy jaay ci pharmacie ba ñu ngi koy jaay léegi ci marché bi moo tax li gën man nag du ma ne demal du ma bindal kenn dama ne du ma ne ni demal mais am na aussi ay épicerie ay épicerie yoo xam ne boo fa demee dañuy am ay pat yu baax boo fa demee dañ la jaay pat bu baax ba pare jaay la brosse bu baax boo brosso ñaari yoon boo mënta brosso benn yoon nga brosso ñaar ñetti yoon ngay brosso ñaari yoon boo mënta brosso ñaari yoon ngay brosso benn yoon mais guddi gi bala ngay tëdd au minimum war nga mën a brosso brosso brosso brosso ba mu set nga wut ay bicotimol c'est-à-dire que benn bouche nga jël ko diluer ko nga garanti ko bi ko tumal comme ça détergent la nit ki mën na comme ni ma la ko mën a expliquer nit ki mën naa ñëw liggéey ci poussière pare dem xëppoo ndox rek tëdd du tax mu set mais il faut mu jël saabu ak njàmpet bu ko defee microbe yi nekk kawam mën a kii nit ki aussi mën naa borosu ni affaire yi de kii produit affaire yi dañ mais microbe yi li ko mën a rey il faut benn bain de bouche nga koy faral di ko jël di ko galant di ko heure bu flacon bi jeexee nga bàyyi une semaine gémmiñ ñu reposer nga continuer waat ko dëgg def noonu ku mën a brosse ñaar yoon ci bés bi moo gën ñetti yoon ci bés bi nag moo gën boo ko mënul nag benn yoon bala ngaa tëdd war nga ko def parce que boo yéenoo ci téere siñson bi sax am na foo xam ne mu lay jàngal ju liggéey bala nga ko def na nga jaa na nga na nga soccu soccu boobu mu lay wax ak beneen invité Bonjour, comment ça et comment la santé